yàlla dina la baal bàkkaar juróom fukki at ku ko jàng fukk ak benn yàlla dina la tabaxal bildin ci àjjana ku ko jàng ñaar fukki yoon di am ñaari bildin ci àjjana ku ko jàng weer yoon am ñetti bildin ci àjjana ba ko nabi wax nag Omar da ko ne ah yaa rasulullah bu dee noonu bildin yi dina bari di bu ko waaw waaw suñ borom moo ëpp képp ku jàng xul walaaw nga jàng ko ci feebar bi nga xam ne ci nga dee bàmmeel duñ la ci fitnaal bàmmeel du la tàpp te balaaxira ay malaaka la tongóob jig yéegi yow siraat ci seeni mbagg ba tàbbal la cëppee laa jala ku jàng xul walaaw ahad sooy dugg sa kër yàlla dina dégager ci kër ga ak ñàkk dégageel la ko suy dëkkandoo yonent bi ne na ku jàng xul wala ahad yàlla barkeel la boo ko jàngee ñaar yoon dina defal barke ci sa ñooñ nga jàng ko ñetti yoon mu defal la barke ci sa ñooñ ak ci yow ak say dëkkandoo soo ko jàngee fukki yoon ak ñaar nag yàlla dina la tabaxal fukki njënd ak ñaar ci àjjana soo ko jàngee téeméeri yoon yàlla dana la baal bàkkaar yi juróom fukki at lu dul deret joo tuur lu dul aleel joo siif soo ko jàngee ñaari téeméer yoon yàlla dana la baal bàkkaari téeméeri at soo ko jàngee junne yoon doo dee mukk balaa ngaa dee foog sa ba tegu sa place ci àjjana nga jàkkaarloog moom door a dee waaw am na benn waay bu ñëw ci ne bi di ko tawat man daal suma wërsëg dafa xat torop te jaboot bu bari ci man lool nabi ne ko ma digal la loo xam ne boo ko defee léegi nga bokk ci richage bi te dootoo toot ak ñaat ko mukk mu ne ko lan la yaa rasulallah yi mu ko boo génne te bay ñëw sooy dugg sa néeg soo fa fekkee kenn nuyu ko soo fa fekkul kenn nuyu ma man nabi wala nga nuyu sa bopp su ko defee nga jàng xul wala ak benn yoon képp nag nuyul ki nga fekk ci kër néeg bi walla kër gi jàngal ixlaas benn yoon wala nga nuyu ma man Moustapha jàngal ixlaas benn yoon wala nga nuyu sa bopp xam ngeen ni ngay nuyoo waa ji de defe naa ci néeg bi wala gaa yi wala ndaw si defe naa da nga koy amul jaaxle waaye boo ko fa fekkul nag nooy nuyoo sa bopp ah soo ko fa fekkulee nooy nuyoo na bi assalaamu aleyka yaa rasulallah ngay wax jàng xul walaaw benn soo ko fekkul nga ne assalaamu aleyna jàng xul walaaw benn waaje ne ne def naa ko avant une semaine wërsëg tuuru ci man ba ñépp di ma yéem di ma di ci soxla yoxoos rek bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum xul walaaw waxadan allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu te kat gaa yi dëgg-dëgg koppar baax na de koppar c'est bien benn waaye dafa mos a wax nag xaalis baaxul ma ne ko nga mu ne xaalis